waaye jaara sa doom ji dañ lay jooy nii rek kii daal awa yaram bay rocceeku ñaari fan yépp ndax couche yi yaram bu rocceeku ndax ay couche ah déedéet jaara te Lula Baby la yu ñu defaree ci réewum Turquie ci ay normes européennes andil ko fii ci réewum Sénégal ngir mu noppal ñu du rocc sa yaramu doom rax ci dolli bébé bi day féex am noflaay te nag amul benn produit chimique Lula bi sakkan na lay tam ci poosu way jur yi loolu daal doo ko wax awa ñaari yoon téel ma sama doom nga ma dama jëndi Lula Baby ngir ngeen mën ko am bu dee ci Dakar mën ngeen a dem ci waa kër Serigne Fallou Matar Diaw et Fils ci Parcelles Assainies unité 9 jàkkaarloo ak jumaay Serigne Cheikh Saliou wala Ouest Foire jàkkaarloo ak Impôts et bu dee ci Touba ngeen dem ca Touba gare bu ndaw jàkkaarloo ak station gare bu ndaw wala corniche Serigne Modou jàkkaarloo ak kër Serigne Modou wala ngeen woote ci numéro yi 77 266 41 08 wala 77 787 35 98 moo gën ci xale ba noppi di sakkanal posu waajuram